benn doomu Sénégal boo xam ne ñu ngi koy wax Jean Baptiste Tine mu nekk ministre de l'intérieur est-ce que sénégalais yi xam nañ ne bis bi mu ñëwee conseil des ministre ci la njëkka a gis Bassirou Diomaye fay ci la njëkk a gis Ousmane Sonko man moo ma ko wax. ma ne ko kon bi ñu falee Diomaye ak président Sonko lan nga doon xaar yow monsieur le euh, ministre mu ne ah ci sama xel de. njortoon naa ne dinaa jóge waar riisi ñibbi si Sénégal mais mosumaa xalaat sax nit ñi xam nañ ma xam guñ may jële sax di wax ak man ba may fal dégg nga dinaa ci ñëwaat am na ministre bu ñuy wax ma <coughs> Mabouba Diagne di ministre bi nga xam ne moo yor agriculture conseil des ministres ci la njëkk a gisante Sonko ci la njëkk a gisante ak Bassirou Diomaye Faye amante wuñ mbokk amantewuñ xarit amante ay wëllëre amante wuñ ay numéro téléphone CV ak jaar-jaar buy wane ni kii borom xam-xam la loolu moo tax ñu recruter ko dugal ko ci biir nguur biir biir gouvernement. am na ministre bu ñuy wax Ousmane jaañ di ministre de la justice bi ñu ko bëggee fal man am naa ay éco dañ doon woo ay avocat pour laaj kan moo am numéro am pour ñu contacter ko ba xam. ñu mën koo consulter pour def ko ministre amul benn relation bu mu am ak Bassirou joomaay wala waa Pastef kenn te wóor na ma ne ci conseil des ministres ci la njëkk a gis a Diomaye ci la njëkk a gis a Sonko mais jaar-jaaram ci justice su Sénégal moo tax ñu am preuve que ne kii ku jubla la manees na koo dugal ci gouvernement ñu jël ko dugal ko mu liggéey noonu laa ko mën a waxee ci ku mel ni ne saar Sarr mi yor ministre économie su fekkoonte ne dañuy xool sax ci côté position politique man ngaa wax ne position politique yi mu doon jël ak yi Ousmane ko nekkoon dañoo opposé wu waaye gis-gisam ci wàllu économie ak gis-gis bi Ousmane Sonko am ak Bassirou Diomaye fay muy programme Diomaye président dañoo dëppoo ñu dem jëli ko nii xamante nii relation nii dara ñu jël ko dugal ko ci biir gouvernement muy liggéey lii ma wax nii ay tur laay tudd ay fee wax ku ko mas a gis ci Sénégal ci 1960 ak tey na ko wax loolu kon bilan la mooy sénégalais yi jox la seen réew yow leer na la le Jean Baptiste Tine boo ko ne woon dama la indi juróomi nit ma def la ma def la ministre amuk amuli nit parce que ku dund 60 ans ba retraité mësoo def politique mësoo def réunion politique xamoo luy militant xamoo nu ñuy wutee militant kooku kenn falu la pour nga mën a def benn récompense ci wàllu politique loolu mën naa koo boole ci bilan immatériel bi nga xamante ne Sénégal am na ko ci 100 jours yii te xamuñ ko woon ci réew mi loolu nag Jomaay Fay doxale doxale ko muy bi ñu xeexee ba jël affaire bi teg ko daf ne lii de xam-xam laa koy joxaat waaye duma ko séddale kii moo noon kii moo noon kii moo sonnoon nii laa koy séddalee kon bu fekkente ne poste bi moom yow boo ñëwee transhumé tamit transhumé indaale seen waa dëkk taxul nga jol poste kon doo transhumé parce que kuy transhumé poste lañ la dikk ministre wala DG wala nga yaakaar ko fa loolooy tax nga jël say nit jël say mbootaay ñëw seet si président ne ko ñëw na toog di xaar waaye bu fekkee président dafa ñëw dagg cordon ombilical boobu mooy fal ñoo xam ne amuñuy nit nañ waxante dëgg mën naa laa wax ci vingt cinq ministres yi nekk ci gouvernement président Bassirou Diomaye fay bii bu ci dul biram sulay Diop kenn miinu ci gañe kenn ci ñoom miinul gañe El Malick Ndiaye dafa perte locale perte législative fam dëkkoon terewul compétence ak xam-xam may na ko mu nekk président mu nekk ministre Abdourahmane Diouf dem na local defe naa demul local mais dem na législatif xam nañ lam am dem na wuti parrainage ci li ci présidentielle bi amut mais niveau xam-xamam moo tax mu mu nekk ministre parce que dafa am lu mu bind ci enseignement supérieur monsieur le président de la république gis ko daa di ne kii de lii mu bind nii dama koy jëli ñëw mu doxal ko mu wuute ak liñ xamoon ci président Macky Sall parce que agri Agripol yi président Ousmane Sonko moo ci bindoon 2018 ci élection 2019 programme am dem leen xool ko Macky sàll gis programme bi Macky Sonko am ci Agripol yi mu daal di bàyyi bañ def élection ba noppi 2021 mu structuré ko daat koy sàcc daat koy def Agripol yooyu sax dinaa ci ñëw parce que yaakaar naa ne yëgu leen ne am na ku fa nekk lu xoromu la nag waaye waa APR sañ nañ lépp koo xam ne président de la république dafa bind décret conseil de ministres wàccee ko moom mu ne wàccut waaw nee na wàccut de ñu ne dañuy def dañuy def dañuy def euh, passation de service démb la woon de kii muy defal passation de service ànd ak commissaire bi koy installé ñu yegg mu ne moom yëgul woon ne wàcc na <coughs> waaw nee daal moom munta a demee noonu daal <coughs> waaw mooy mooy mooy DC général du adrit poli ñu koy wax ji li mbay loo dinaa ci ñëw nag parce que bu ma ci soree day yàq sama waxtaan te loolu yëkkatiwuma <coughs> waaye Abdourahmane Diouf bu doon ay nit ak mbooloo yafe naa ne Sonko du ko jël di ko dugal ci gouvernement mais xam-xam ak dayo moo tax ñu mën ko recruter dugal ko ci biir gouvernement ne ko ñëwal nga liggéey niki noonu noonu laa ko mën a jëlee kon senegal dañ daan def bu ñu tollee fii dañuy def partage gato maa am nit ca Louga. maay jël ministre bi maa am nit Bambey maay jël fii Aminata Tall moo nekk Diourbel mooy jël fii euh, Iba Guèye moo nekk Mbacké kaay jël fii Moustapha Cissé Lo Touba yaa yor lee ñi jàngut sax nga xam ne mu mënuñoo falu dañuy am quota daal di jël seeni mbokk roof ne sama najaay la am na xam-xam kii sama bàjjan la am na xam-xam ñu dugal man de yaakaar naa ne président bii fi nekk biñ faloo ak léegi gisaguma benn kenn koo xam ne maam am na quota yaakaaruma ko kon ana quota yi ndax Farba Ngom de yaakaar naa li Guy Marius Sagna daj pour Bassirou jomaay fay toog fii mu toog Farba Ngom daju ko pour Macky Sall falu Amadou Ba Pastef lim daj pour gii pour pour Diomaye Faye toog fii moo nekkoon mandataire am Farba dajul genn wàllam pour nekk pour pour président Macky Sall toog Farba Ngom da doon falu DC di ko dàq. di fal ministre di ko dàq léegi kon lan moo tax boo masaan sonnal Macky Sall même bu doon ab nilaar bu jàngun nga sax ñu ne la demal woo sa bàjjan ñu fal ko ndax yaa sonnoon tey jii dem leen xool ñu falaw 100 jours yii est-ce que est-ce que Guy Marius Sagna coono bi mu doon sonn pour Diomaye fay falu may na ko privilège yu mu amul woon wala déet dem leen xool Amadou Ba Pastef ba xam am na ko wala déet dem leen xool Abass Fall ba xam am na ko wala déet foofu dinaa ci taxaw tuuti parce que doo xam ci ñett yi ma wax ñett ñett yi may bëgg a wax kan nga war a gërëm sax muy président Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne bi ñu ko falee au lieu que mu jël mbir mi def ko partage gato mais daf ko jël doxale ko noo xam ne nii opposition bi sax amul lu wax doo xam moom ngay gërëm ak ak ak monsieur le ministre euh, président Ousmane Sonko wala da gërëm sénégalais yi nga xam ne woo nañ leen ci engagement pour ñu ñëw liggéeyal seen réew ñu nangu parce que tey ku mel ne Jean Baptiste Tine mii ma tudd man wax na ma ne biñ ko ne kaay nga ñëw nekk ministre daf ne waaw man politique ah waaye de bu doon mu ne bu doon politique de ñii ma woo nii ne ma kaay liggéeyal Sénégal duñ ma woo parce que man politique gu ma tax xamuñu ma kon woowuñu ma ndax politique waaye daal ne waaw man ma dem ba retraité nii ba am samay tool war a bay ñu jékki-jékki bëgg maa dugalaat ci ay réunion ay conseil de ministre ay xëy liggéey ah waaw man téema toog rek ba continuer sama mbay mi waay uuf liir uuf samay doom liir samay téere daane ne déedéet ñu def sacrifice bu toll nii xamuñu ma xamuma leen ñi romb sénégalais yëpp ne man maa leen doy nañ leen ñëwal ñu liggéey may xool samay tool ak samay doom duma ko def sacrifice bi soon ko def jomaa yi def ko sacrifice boobu laay def daan na nangu naa Mabouba jaañ man barki démb laa jóge lome fa mu dog fa mu nekkoon bureau ba mu nekkoon banque bi mu yoroon di ko jiite jàpp naa ne moo dàq fuuf doon ab ministre nga jël engagement ñu woola la nga bàyyi sa privilège yëpp ñëw engagé wu di liggéeyal Sénégal loolu tamit dañ la ciy gërëm ku ne Ousmane Diagne tey liggéeyal na Sénégal ba retraité te li ci gën a neex mooy ay Ousmane Diagne ay Jean Baptiste Tine ay colonel biram jóob Birame Diop tamit ci ñi nga xam ne amuñu woon benn relation ak waa Pastef ci la bokk ñu jël ko jox ko forces armées te forces armées c'est la première fois ci histoire du Sénégal ñu jël forces armées dénkaat ko ab général ay dentiste ak ay yooyu lañ ko daan dénk waaw loolu moo fi nekkoon ñooñu Sénégal dalee na naroon a perte parce que ay nit yi dëgg lañ ay Serigne Gueye Diop Sénégal mënoon na leen a perte ba faw Sénégal da doon perte sans Baptiste Tine ci xam-xamam ci njubam ci expérience am ci léppam da ko doon perte da doon perte Mabouba Diagne parce que da doon dem génn di servir yeneen i réew bàyyi sunu réew da doon perte ku mel ne euh, Ousmane Diagne mi ministre de la justice parce que demoon na frigo ana ay Souleymane Deliko ñi juboon ci justice bi ñëpp Sénégal da leen doon perte ñu génn li leen jëlaat indiwaat leen ba Sénégal man leen a bénéficier woo mën leen a jariñoo loolu mën nañ cee gërëm Bassirou Diomaye fay mi leen woo ak président Ousmane Sonko mais mën nañ leen cee gërëm ñoom tamit parce que bu leen neexoon bañ ndax ay mag lañ ta suur nañ ba pare parce que en général amatul lu ko ministre mën a yokk day tedd ba ba muy dee noonu la demee kon mais du ma gërëm ñaar ñooñu bàyyi militant Pastef bi nga xam ne tey dama koy wax